ñoo ci ben constat boo bo ne ma nga nek fele ci canal bi tuddi Samir Nasir nek ko xam français la nek ko xam football lol di faral di wax lu bare bari ci football euro bi rawatina fofé nga xam ne championnat bu France bi demu nak Max Mata bi mu jexé moom dafa def li nga xam moy ration nek ko xam dal dafa bardé ci taxawaayu suñu gaynde yi rawatina Ismaïla Sarr ak Iliman jay dañ ñew nak dekk leen kàddu yu wax mais laataa lolou dañuy wax yeen ñi nga xam gan ngeen ci bi le page yu ngeen abonné te ngeen bës li nga xam mooy ngeen mën a am seen vidéo à taaral fii ci Room Sport a doole ba ñu mën a li nga xam ne mooy suñu objectif sama gars yi nag bu ko defee rek ñu pousse ndànk ñëw ci kàddu yi Chamouna Séri yi mais balañ cee ñëw yéen ñu bëgg ci kàddu yi may leen cœur ngeen commentaire ngeen aimé ngeen partage ay lien loolu ñu mën a doole ba ñu mën a atteindre li nga xam ne mooy suñu objectif ndax dañoo bëgg nag abonné yi gën a yokk balaa ñoo yegg ci Korité bi ñu yegg baar cinquante mille ci abone te jàpp nañu yéen ñu mën a jàppale ci loolu di paraf ay liens bu baax a baax di ci incité ndax loolu mooy tax ñu am li lu ñu bëgg démb nag semaine soo gisee Pape Gueye mu ñëwee deuxième mi ni mu taxawee nga gis Iliman Ndiaye ak Ismaïla Sarr ñu tàkkee mu ne benn fekkoon ne Aubameyang nekk ci forme mu ne kon da nga gis ne Olympique de Marseille mën naa ñëwaat ci défa boo xam ne niveau bu kenn foogu la balaa saison bay jeex mooy nag ku mel ne Iliman Ndiaye boo koy sànni football ak Ismaïla Sarr mooy da ngay bëgg ndax mu ne xale yi euh, tellement dañoo mën football pare dañoo mën a passé mën a dribblé te mu ne ñoom euh, ku ci tey bare dafa gëm ku kaaku dafa dem ci kanam maanaam ñoom gëmuñu football dellu gannaaw te loolu wax ci Iliman Ndiaye waxee ci Ismaïla Sarr ñu xam ne ko Ismaïla Sarr fu mu téye bal day dugal vitesse ci kaw du téye sax di passe Iliman Ndiaye fu mu téye bal di jàpp ne comme jàkkaaru du mën laa dindi dem dugg ci surface kon yaakaar naa euh, ñaari xale yi jeu boobu nekk ñoom comme ni ko Samuel Nasser waxee bés mu gën a arrêté ak Marseille euh, Iliman a indi li muy football gën gëm li ma def Séville gëm naa ne Marseille Euh, saison di dana xaritee fa li nga xam ne mooy championnat bu France bi bu xamee yéen joueur la war a jëndaat moom marché yi